bismil ilaahi ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaama yàlla auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billahi bismillahi internet yi nga xamante ni yéen tàmm di topp ci suñu jotaayu xam-xam bii nga xamante ni mooy faj sa jàngoro ñoomaan bi tey dellusiwaat ci beneen numéro gannaaw bi nga xamante ni wax dëgg yàlla balu nañ ak askanu Sénégal gépp itam wax dëgg yàlla bal leen ak itam ci bis bu màgg bu tëdd bi nga xam ne ci dañ génn itam ñaan itam sama borom ñu jéggal ñu baal ñu mbooleem rëq-rëq yoo xamante ne rek séq nañ ko ci lu ñu yàq ci lu ñu yëgul waaye ñu leen baal ci suñu wàll ñu dajawaat tey ci suñu jotaay bi nga xamante ni wax dëgg yàlla askan wi namoon na ko ndax fa yi ku nekk ngi laaj ndax Baye Talla dafay newul wala Cheikh Ibrahima fi newul waaye daal ñi ngi fi rek na jamono xat-xat yi mu àndaloon moo tax ñu dajawaat tey bëgg a waxtaane waat ak lenn ci xam-xam ak askan wi waaye fego ci tam ak suñu naataango ñu gën ko xam ci Oustaz Ibrahima Diarra ñu koy jaare bu baax baax moom itam di ko dara ci biir jotaay bi waaye ànd ko tam ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan moom mi nga xam ne nee naa kenn dootu ko présenté ndax àdduna wërngal képp xam na ko Cheikh bi kon ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal laaj ci biir salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu sëñ nuyu Samba euh, di la wax ne waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ibrahima. ñu ngi lay nuyu yow tam gannaaw yaa ngi ci biir jotaay bi tey macha allah rabbi. waaw waaye gannaaw bi sant yàlla la jërëjëf sëñ Mouhamed. Mm-hmm. ñaan yàlla borom subhanahu wa taala boole ñu jégal. Mm-hmm. ñu am mbégte lool nag ku dégg yàlla toogaloo kii la ñu dégg incha allah ñu am baax ñu ko ñaanal waaye dina nuyu bu baax a baax a baax yow bàyyi dara ñu ñaanal barakallahu mboolem koo xam ne rek Ibrahima xam naa ñu njëkkanteeg waxtu bi rek euh, gannaaw askan wi namoon na la waaye fi may tàmbalee mooy ci suñu jotaay yu mujj yi bi mbas mii nga xam ne lëmbe na réew mi di di di di door a xew. bokkoon nga ci bi nga génnee joxe woon fi ay ndigal ba joxoon président de la république ndigal pour mu taxawoo ko askan wi waaye nga waxoon ci tamit dee yi dana bari ci at mii nii rawatina ci kilifa yi kilifa diine kilifa aada wala administration waaye itam plus particulièrement ci ndaw ñu bëggoon xam gis-gis la woon luñ la yëgaroon la wala leeroon la wala naka la dikkee woon ba nga soññu ci la parce que loolu nga waxoon tey jii ñu ngi koy gis ñu ngi koy dund fi mu toll waaw xam nga baytaal la nit du ko suñ boroom dimbalee tuuti daf koy gindi ci li muy amal maanaam luy waaj a ñëw ci nit ñi rek suñ boroom lancé na message boroom xam-xam yi bañ xam ne lii mi ngi waaj ñëw lu mel ni dee nag buy waaj a bari ci nit ñi boroom xam-xam yi ci lu ñuy sukk sukkandiku man koo wax signalé ko ba xamal nit ñi ni leen nii àdduna mel walla lii ngeen nekkee ci àdduna su ngeen ko wàññiwul dina rëfër la ci seen kaw mooy melokaan yi ñuy gisee àdduna dafa am jamono ñu gis àdduna dëkk bi ñuy wax Birimani julliti yàlla ya fa nekkoon ñu leen di rey reyin woo xam ni ñaaw na lool ci àdduna bi ñépp di seetaan ñu jekki-jekki seen géej gi di faq wut ci doomu aadama yi inondation bi ndox mi wër nit ñëpp kenn amatul foo jaar ñu jékki-jékki gis mala yi di dee tàngoor wi di leen rey yuuxu googu àdduna yuuxu nit ñi borom baatin yi xam nañ ni yàlla ngi leen di xamal ni lii may wone ay signe la rek mi ngi mel ni nawet xiin wi bokkul ci taw bi waaye day way baatikat yi ni leen léeg mu taw de bu yàlla yëngalee àdduna bi nit ñi di xool te areeruñ reculé wuñ delluñ ginnaaw ci liñ nekkoon seede borom baatin xamal leen ni xamal leen leen ni leen lii yàlla di signalé ci seen kaw la ko jëmee yéen a koy mujjee moo tax bu ñu gisee àdduna bi tooñ gi bari fi jaay doole gi bari fi ragal yàlla gi néew fi lépp lu yàlla musaana tere ñu koy gën a def nam ñaawee te amul kenn ku jug taxaw défendre kàddu yàlla moo taxoon ñu wan leen wax leen ni leen lii suñ borom di signalé ci seen kaw la jëm si loolu moom ci lañ sukkandiku woon nag natt ko ci baatin xamal leen ni balaa yàgg di ngeen gis nit ñu baari dee ndax yàlla bu laalee lépp laal nit ñi te dafa tolloon foo xam ni ñaari at yi ci ginnaaw yàlla laaloon na lépp doomu aadama yi doo nga ci desoon loolu moo sababoon ñu wax leen loolu bàyyi taala mu doon lu am solo loo xamante ni xam naa ne buñ toppee ci suñu jotaay yi weesu dinañ gis lii ma laaj nii ak li nga ma ci tontu waaye léegi tey ji ban ban pexe naka la nit ñi askan wi mën a mucc ci tey ji faatu gu bëri googu nga xam ne fi ne mi ngi ci suñ borom da ko sàkk comme ni mu sàkkee doomu aadama yi wutal wutal ko nag waxtu ah, dee dina bari lool boroom xam-xam yi baatin yi daje génn ñaan suñ boroom mu wàññi leen ni mu koy amalee comme ni mu ndox di bare comme ni leneen di bare dee gii ma gis nag ci kaw suuf bu dee nit ki ab julli la moom ñaar ko ci mën a musal muy sarxe te yàlla tax di bari lu muy tuubal yàlla ci aw làmmiñam muy xale muy mag muy ndaw ndax dafay toll foo xam ni ci àdduna kenn du xaar ku la yóbbu dangay ngay jéem a yóbbu sa bopp bu dee daa am lu tiim ñi di leen lor te ñëpp lay lor kenn du daw dawaaleel kenn kenn ku nekk yaay dawal sa bopp moo tax fii àdduna toll ndaw lu ko man bari looy sarxe te sarxe li yonent bi taam taamu ñu sarxe ko yonent bi ñu ko laajee sarax lan moo ci gën dañu ñaar koddaay ak lu ñuy lekk lu ñuy lekk ci ñaari waxtu muy waxtu yi nit ñi di lekk diggante yoor yoor ba tisbaar foofu dañ koy xiif diggante takkusaan ba guddi yonent bi nee na gépp lekk gu dagan nga sarxe ko baax na li ci des mooy koddaay koddaay mooy lu nit di sol ñu di ko sarxe jamono bu rafle amee ak jamono bu feet jubsee lu mel ni tabaski wala korite ak yooyu ñoo taxoon ñuy wax waaye comme yooyu teewul nit ñi rafle léegi képp koo gis mu rafle rek mën nga koo sarax koddaay képp koo gis tamit muy woy xiif mën nga ko sarax lu ñuy lekk ñaari sarax yooyu ñoo gën ci kaw suuf si bu dee ña faatu ñu leen di sarxel nag sarxel leen ndox moo ëpp yiw ci ñoom jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo boobu nga xam ne indilaat nga ñu ko askan wi tam mën a def ba mucc tam ci loolee nga xamante ne wax dëgg mooy faatu gu bëri gi am solo bokk na ci tamit ci ci ci mbas mi bi muy door a xew duma ci génn ndax dafa bokk ci actualité te te terrorisé na àdduna bokkoon nga ci sëriñ yi njëkk a génn toog nekk boroom dëkk bi li mu war a def mooy sëriñ bu fi jóg di wax ci mbas mi ñu jël la teg la ci bërëb wala ñu làpp-làppal lan nga ci jublu woon waaw parce que nit ki amul droit àtte lu xamul. te mbas mi ba muy dóor a ñëw ba suñ jon yàlla tey jii kenn ku mën a génn wax ni lii mooy mbas mi wax ci xam-xam bu leer amu fi. yaa ngi dégg kon nag nu ñuy def ba dund ak moom rek moo fi am te loolu moom képp ku am xam-xam bu rafet rek ci nga bokk ci ñu ko war a xamle. muy côté état bi muy côté diine ji muy côté bu ne côté bu ne organisation ba fa nekk responsabilité bi état bi am ci mbas mi ñoom moom lañ ci am xool nag noo ko mën a maîtriser ba adapté ko ci sa la ngay def loolu doo nga fi nekk waaye nag nit lii mooy solution mbas mi amagul vaccin yi ñëw nañ nit ñaa ngi vacciné wu mu ngi leen di défendre mais ña vacciné wu am na ca ñuy am mbas mi mbas mi nee naa la fii ak génnuñu ba wax ni lii la nit ñi xam ni au fond de la lii mooy feebar bi ah, la koy faj moom génnagul lu commencé nag te kenn xamul kañ lay jeex ñuy wax troisième vague quatrième vague fu ne ñu vague vague jëm fa nag xam nga luy dimbali nit ñaa ah, mooy ñi nekk ak moom jéem koo jàppee ku kuñ war a mën a nekkal nekk ak moom waaw te amul lenn loo xam ne nag. day téye nit ñi jëlee fuñ xamul nit ñi bi leen suñu borom bindee dañ leen fam suuf fii manaakibihaa wa kullu min rizqihi tasaare googu yàlla tasaare nit ñi ci kaw suuf nag du ab corona moo leen di téye dégg nga wax be du coronavirus mooy téye nit ñi de yaa ngi dégg nit ñi ñooy jéem a téye coronavirus bi ndax leneen lu dul woon moom ñëw na fi nit ñi jële ko fi te lii nag dafa war a yeesalaat fas-fasu nit ñi ci yàlla ndax am réew su fa ay nit yàlla nekkee ñi naan maa nga lawful maxfuus ñi naan aras lay fanaan ñi naan kursu lay fanaan te kenn mënu cee gis virus bi war nañoo xalaat suñu bopp li ñu yàlla digaloon nag ci boppam dañ ko bàyyi mooy ñu ragal yàlla am ak taqwa ragal yàlla ragal yàlla googu nag nga xam ne moo manqué ci ñun moo tax daanaka lu bari boo koy wax kenn du la déglu ndax waxi ku ragalul yàlla kenn du ko déglu àdduna nag jullit ñi ko yàlla dénk suñ leen ko nanguwut dénk jullit ñi ko yàlla téeloo suñ leen ko nanguwul a téeloo day indi lëj-lëj ci kaw suuf ci alquran ustaas ngi nii toog suñ borom dafa ni kaddu yàlla dina féete kaw ba faw kaddu gu yéefar yépp ci suuf lay féete hmm? su ñu demee nag ba ni kàddu gu yéefar yi ñooy féete ca kaw kàddu gu yàlla féete ci suuf su boobaa la yàlla waxoon moom lañ dul dëggal te ñun suñu wax moo dul dëgg ci waxu yàlla moo dal feebar bii ak nit ñi àdduna bi àdduna bi ci boppam moo dem ba système bi ko jiite woon dem ba àgg ci pôle bi nga xam ne taxaw na ñoom mënuñoo defa dépassé fii kon faaw boole ci nit yàlla yi faaw ñu boole ci lislaam ji fawuñu boole ci njabootu yonent bi ndax ñoo mën a piloté li des adduna fi mu toll ab yahud du ko jiite ab nasaraan du ko jiite nitu yàlla moo koy jiite lu bokk ci lislaam moo koy jiite njabootu yonent bi moo koy jiite ñi maîtriser alquran ñooy maîtriser àdduna bi loolu nag jullit ñi seenu yaafus ñoom génn nañ leen ci ba jamono toll na foo xam ni actuellement juif yeeg ñi lànki adduna bi wax nañ ni pour adduna dem faw ñi boole ci ñi maîtriser alquran ndax alquran dafa bokk ci système bi alquran mooy dul lu ñu moo dul moo dul féete suuf alquran mooy tée àdduna alquran mooy mujjee mujjug jamono alquran mooy gindi way réer yi te way réer yi ñooy dox ñoo jiitu ku xamatul fu mu jëm nag ki xam fu jëm moo koy yóbbu loolu oustaz na ci indi ay leeral waaye àdduna munta dem mukk te dañoo jiital téereb yàlla bi jiital yonent yàlla bi topp ci ginnaawam bay taala foofu nga waxee léegi ko laajee rek waaw xam nga baatub sëriñ ni ko sénégalais yi jàppee nga xam ne mooy seexul murabbi mooy koo xam ni dafa lay defar sa digganteeg sa borom ak yooyu euh, loolu senegaal ñoo ko jàppee noonu ñoo ko tuddee noonu waaye yonent bi li waxoon ni ñooñu ñooy sëriñ si mooy ñi nga xam ni doomu aadama yi ñoo leen tànnal seen bopp jiital leen ci yoon yàlla nga xam ni ñooy imaam yi ñooñu sax la yonent bi wax demee ci laxdar yi dafay wax ni yeneent bi yaa matal ñi yàlla yónni woon ñi yàlla yónni mooy yàlla doon dénk adduna mooy yeneent yi yaa mottali awliya yi ñi fi yàlla bàyyi sa ginnaaw mooy ñi nga xam ni ñoo gën a jige yàlla ci ak ragal yàlla ak maandu ak jëf-jëf joo xam ni dañ koy jëf ci jëf joo xam ni ndigalul seen borom lay doon gannaaw ba nag yaa mottali imaam yi nga xam ni yàlla daf leen dénk diine ji ñu maîtriser alquran di jiite njabootu yonent bi ci yoonu yàlla ñooñu ñooy sëriñ bari na ñoo xam ni fañ jëm du faax fi ñu bàyyi lañu war a jëm ñooñu ay nit lañ comme nit ñi dama waaw waaw léegi nag xam nga du nit ñi wax rek moo am man di xam-xam wax laa lay wax waxi nit ñi amul solo sëriñ daal mooy koo xam ni dafa woote woo ci yoonu yàlla ci ndigalul yàlla te dañ koy tànn càmbar ko nit ñi ànd ci woote boobu noonu jiital ko suñ ko bëggee folli folli ko kuñ falta mënuñu laa folli dictateur a ngay dugg si yaa ngi dégg ab imaam nag daa koy falee am yuñ kuñ fal te kenn mënu laa folli man la googu fal yàlla àndu ci dégg nga wax bi waaw ñu continuer jërëjëf oustaz ci ci ci laaj bu am solo boobu ngay di tam wax dëgg yàlla am am am na solo lool mais cheikh bi tam man foofu oustaz laal foofu bëgg naa fa laal tuuti tey ji euh, tey ji bu ñuy wax naka lañ mën a def ba différencier sëriñ wala tey ji bu ñuy wax sëriñ ñaata pàcc lay am ci xeetu borom xam-xam ñoo am ci yoo xam ne war nañu a waaw sëriñ ñetti xeeti sëriñ am ay boroom xam-xam mooy koo xam ne dafa dem jàng ba ni ar xam masala yëpp yër téere yëpp toog kooku dañ koy woowee ab sëriñ ndax day bari lu ñuy laajte loo xam ni soo demee mu wax la ko am koo xam ni dafa topp ismulaayil azam dafa bari turu yàlla yu werd ba leeru yàlla dikk ci moom kooku lañ koy woowee sëriñ ndax day man lu nit ñi mënul toujours ndax dafay am jagleeg suñ borom gu nekk ci moom goo xam ne nekkul ci ñeneen te yoon wi ñuy jàng jaar moom yoon wi mu jaar mooy yoonu ci kar jàng mooy lu ñuy faram-fàccee leeral la ko dañ la koy defal bi nga nekkee xale dañ la koy defal bi nga nekkee mag ma dafa am loo xam ni xale mënu koo xam mag mënu koo xam ku jaar ci yoon woowu rek yaa koy xam mooy yoon zikrullahi moo tax suñu borom ba ñëpp jàngee ba toog dañ leen war a zikrullahi akbaru def ngeen lépp waaye tudd yàlla ko ëpp doole dégg wax bi yoon woowu nag dafay am ñu fay jaar ñu leen di woowee sëriñ am ñoo xam ne jaaruñ ci yoon yëpp yëpp suñ borom ci boppam moo leen defub sëriñ ñu dooni sëriñ jagle la daal waaw hmm. xam nga xudar fu mu jàngee ku ko jàngal ku ko xam hmm? du Moussa mooy yonent bi waaw lu tax xudar di xam lu Moussa xamul te Moussa ñu koy wax yu malaayika yi di ñëw ci moom loolu mooy jagleel suñ borom lu suñ borom programme ci yow ngir nga leeral ko day am ci nit cest à daa bari loo xam ni dañ ko généraliser ci biir doomu aadama yi te demeewul noonu mbiru bàttin la mënoo cee wax nag ci média bi nii rek ñépp di dégg waaye dafa xóot waaye mbirum sëriñu lasraar nag bu dee moom bii am Sénégal ngeen bëgg a xam lan moo mooy sëriñ boo xam ni mën na def lasraar mën na am nit ku am aajo ñëw ci moom mu fajal ko aajo bi mën na xam wàllu xalwatu mën na xam wàllu tabixa doomu aadama yi mën na faj seeni feebari saayir mooy yi leen di dal nii bu leen junne yi duggee wala nangam nangam nangam nangam loolu ay domaine la yoo xam ni ci wàllu jàng danga koy jàng ci wàllu kurus da nga ko ci xam ci wàllu xam-xamu garab yi danga ko ci xam waaye ci wàllu itam ismulaayil ahzam bii ma lay wax suñu borom dala ko ci xamal yaa ngi dégg boo gisee mbirum junne am na fi benn sëriñ ci dama lay gis ngay waxtaan ak moom des fois mos nay wax ak man ci affaire junne yi ma posé ko benn question ma ne ko bu dee ci nit ñi xam nga ni yonent bi ci ëpp xam-xam bu dee ci junne yi ko ci sut xanaa boo ko laajoon oustaz moom dina ci war a tontu jël junne moo sut ci junne hmm? ko laajee tontuwul xam nga ci jamono yonent yàlla Suleymaan dafa amoon ci nit ñi koo xam ni ismilaahil ahzam la yoroon waaye gannaaw Suleymaan xamoon nañ ni moo fa sut ci xam-xam. niki noonu tam Souleymane dafa dajale woon junne yi ci monde bi yëpp ndax moom nguur àdduna la ko yàlla dénkoon junne yëpp daj dëppoo ci Souleymane daje dëppoo ñoom junne yi wax ko ni ko junne ji mooy suñu kilifa ci xam-xam moo ñu sut ñun ñëpp yaa ngi dégg junne jooju moo tudd sawbaa mooy junne ji sut ci junne yi bu xëyee suba na ko laaj nit ñu jàng ñi ko xam bariwul yaa ngi dégg lu yonente yàlla Suleymaan musaana laaj junne yi buñ ko xamul dañ naan ko bàyyil ñu dem ci suñu kilifa laaj ko ko moom lañ koy laaj mu xamal leen ko bu dee ci nit ñi jamono jooja nit ka fa sutoon gannaaw Suleymaan moo tudd Asix bun Balqiya man la ñaar ñooñu ñooñ ñi nga xamante ni si nii ñoo sutoon ci nguurug Suleymaan gi gannaaw Souleymane mi ngi doonoon amir bi ba suñu jooni yàlla tey jii amaatuñ benn boroom xam-xam junne boo xam ne xam nañ ni mësutoon kooku ma lay wax yaa ngi dégg su jee ci nit ñi nag gannaaw yonente bi sallallahu alayhi bi lislaam ñëwee gis nañ ni moom am nañu sut asabun bal xiyaa moom ma lay wax waaye junne yi dañoo gisaatul ko sut junne jooju ci xeetu xam-xam waaw loolu noonu la demee baytaal. léegi léegi mooy fétiche. waaw fétiche bi ma xam ak njabar la li senegal yi di woowee njabar loolu mooy fitis njabar nag dafa am cosaan wala nga koo deflu da war a xam lu doon ak fum mu jóge njabar nekkul ni sàmba moo koy jàngal demba walla déedéet yàlla moo wax ci alquran lan mooy njabar mu leer nit ñi ñu xam fu mu jóge xam cosaanam xam itam lan moo ko indi ci àdduna ak fan la jëme nit ñi ak dégg njabar ca jamono yi yonent yàlla suleymaan la njëkk a am ñaari malaayika ñoo wàcce am na téere yi ñu dëkkoorul ci ñooñu ay malaayika duñ may ay malaayika ay junne lañu waaye yàlla wax mënul leen a defi junne malaaka yooyu yàlla ni bi baabi la haaruuta wa maaruuta haaruuta ak maaruuta ñoo fi indi njabar ci kaw suuf suñ borom ni njabar gii yéen ngi ciy dugg waaye leen di indil fitna fitna nag mooy li ci am nii njabar bare na waajaak waaja dee na faak alal ji da ko mujj dofoloog dañ ko faa ëf mu dofak dañ ko faa sang mu dofak yooyu la koy sabab mooy fitna ji suñ borom wax te fitna njabar du yem ci ñi def njabar ga day indi fitna tamit ci kaw suuf si ndax kilifa yi dañ ko yor di ko xeexee boo bëggee pouvoir dem ca njabarkat ya ñu njabar doomu aadama yi ca seen seen yoon nekkul ñii ñu rey leen jël seen ras ya ñii jël seen deret ya ñii jël seen karaw ya loolu nag day daal di indi fitna ci seen biir njabar xam-xam bu existe la waaye xam-xam bu doy waar la bon niti diine yi nanguñ woon seenu njaboot gëstu ko nanguñ woon seenu njaboot jàng ko waaye daanañ bàyyi yenn yenn ci seen biir ñu xam ko ndax mbir boo ko xamul ñu ci dalee ci sa kaw doo xam na ci défendre sa bopp yaa ngi dégg xam-xam ak réew mu mën a doon dañ koy contrôler dañuy contrôler xam-xam bi contrôler ñii xam-xam-xamu bi waaw ndax boo demee fii militaires yi bomb yi joxuñu ko policiers yi ñu yor ko de hmm? xam man xam nga lu tax la bomb yi nekk ca camp ñu tëj ko jël pistolet rek def ci ay bali ndaw jox policiers yi xam nga lu tax ñoom loolu lañ maîtriser waaw étape étape laa lay jox étape bu ne dafa am ñu koy maîtriser étape bu ne dafa am ñu koy maîtriser xam-xam yi tamit noonu la xam-xam bu ne dafa am ñu koy maîtriser xam-xamu njabar xam-xam la boo xam ni kakkaaj ji yéefar yu mag yeeg seeni junne ñoo ko yor ku sob ba dugg ci sefini yaa ngi dégg gis nga gis néew bu dee ñu koy yuuxoo tam doonub jullit gis jullit bu sa saggoog njabar ñu koy yuuxoo mel ni ku dee moo gën a yàlla ci loolu ndax ak njabar ñett lay dox benn mooy sa digganteeg sa borom dara nekkatu fa ndax yàlla laa loo def mooy sa digganteeg sa bopp amatoo ci contrôle waaw nit ki moom bu xasee ba dugg ci loxoy njabar ya moom féticheur yi moom contrôleetul boppam nii ak dundam nii wërsëgam loolu lu ko gën a dangereux ci doomu aadama amul. su ma la am na conséquences yoo xam ne ñoo nekk yi nekk ci njabar bu ma toogoon fii ci tele bi leeral ko bu ma xëyee suba gouvernement bi dañuy xëy di wër njabar yi képp ku dib njabar ñu gën la <laughs> hmm? réew. mi kenn xamatul li xew ndax ay jabar la xew wala kenn xamatul fi mu ne waaw li xew nag. du luy du lu fiy dund maanaam du luy dund Sénégal. déedéet dalul dem ndax tamit dafa am yoo xam ni daf du du continuer gis nga bari na looy dégg ci réew mi bañ ko bëggee samp ci réew mi ak léegi léegi mu mat téeméer at mënu fi am kër. ngay dégg dafa am nag loo xam ni moom laa lay wax duma ci waxtaan dama koy bëgg waxtaanee ci beneen étape bu dul wàllu débat yi parce que. wàllum njabar ak wàllum góor jigéen ak wàllum franc-maçonnerie ak yu mel noonu dañoo civiler Sénégal pour ji ko fi mu sax comme ni ñuy jiyee ñun luñ dundee ci nawet bi maanaam noonu lañ ci bëgg a yu mel noonu ci réew mi mu sax fi parce que senegal dañ koo bëgg a def benn affaire boo xam ne dafay rëkkale ci diine te loolu grand puissance yi ñoo ko soxla parce que dañoo gis ne l'islam dafa am benn clé ci Afrique de l'Ouest muy Sénégal clé boobu fii yuñ ko wala yàquñu ko rek liñ bëgg fii duñ ko am ci Afrique Sénégal dafa ci am position boobu moo tax fi ne bari na loo daawul dégg ci réew mi di ko fi dégg ay financement ak ay lobby ñoo ko fi exploité pour effacer système bi fi nekk nii dugal fi beneen système bay taala yàlla nañ ci yàlla muccal muccal ñu ci parce que loolu moom fi ne doon na nit ñi jaxasoo nañu fi mu toll mais sëñ bi bëggoon naa xam tam fi mu toll dëgg dëgg dëgg dëgg fi mu ne euh, ci wàllu sarax bi nga tudd sànq ni mooy moo mën a muccal askan wi ci jamono bi kon ci li nga doon wax naan njëriñu sarax nga indil ñu ci tuuti ak yan sarax tey jii nit ñi war a mën a def askan wi war a mën a def ngir réew mi stable parce que réew bu ñu ko xoolee stabilité amatu fi. waaw réew mi moom laaj nay sarax adduna bi tamit laaj nay sarax. nga dégg ndax fi ne feebar bi waruñu woon a accès moom fii te génne luñ koy sarax ndax sarax dañoo wax ni lu dul deegu jot lu mën a doon sarax mën na ko fiy jëli mën na ko fee fanq yëkkati ko fii sarax yonent bi nee na dina dajeeg balaa ci kaw asamaan si ni fay bëreeg moom lu mat juróom-ñaar fukki at du wàcc ndax sarax baa ko fa kale suñ nekkee ci balaa ñu xamul suñu nattoon sarax yi ñu war a sarxe ci at mi buñ ko defee sarxeel at may ñëwaat yàlla mën nañ caa dimbali mu woyof ci ñun wala ñu teel a xam nuñ koy mën a maîtriser ndax doomu aadama moom lu mu am xam-xam rek xam na muy adapté woo ak moom feer bi dañ cee amul xam-xam moo tax moom ñuy def nii waaye bu ñu amoon xam-xam ci moom rek maîtriser ko teg ko fële kon feer bi moom laaj na sarax adduna bi tam laaj na sarax ndax lu jaxasoo lu yëngu fu ne dafa laaj lu koy lu koy dalal te sarax mooy dalal adduna parce que wax bi adduna yëngu na ay yooni yoon sarax ko dalal aadama alayhi salaam keroog ba njabootam gi reyantee ci lenn lu amoon dégg wax bi ba ñu bëggee mu dal dafa leen laaj kenn ku nekk ci sa alal ba ñu ñëwee da koo def ab sarax wax naa la ko fii yonent bi keroog ba ñu waree jot waajuru mu góor màkka gépp yëngu kenn ku nekk xamul nu muy def mu Muttalib ni waxante woon na ko woroomam ba pare keroog dañ koo digalub sarax moo tax màkk réew ma yëpp am jàmm Ismaayila keroog bi ko fi Ibrahima bëggee jële ci ndigalul yàlla ba mu demee ba ñoom ñaari ñëpp desul lul ñu def leen suñu borom sant ba leen suñ borom nag bëggee dindi ca lañ nekk dafa leen a wàcceelum xar ñu def ko sarax kon sarax fu jamono yëngoo moo koy dalal mooy solution gannaaw nag ba nga xam ne ni nitu yàlla yemmaandu wax nañ ko ci xam-xam boo xam ni buñ ko nattee xam ne lii xam-xam bu wér la yàlla am na di ko ndaxte di wax na tamit salaat bi gën ci salaat yi mooy di wax lu baax léegi te ñun ñun sport léegi dañu ñemee jël góor jël góor di ko di ko ràggate duñu xam ci moom léegi loo xam ndax bu ñu toppee ci góor yi di di di saaga xas bëgg na sarax sa loo xam ndax dina dina dina dina am effet. waaw sarax si dafay jëlee loolu ñàkk ragal yàlla gi ak ak xirtal gi seytaane xirtal nit ñi ci lu bon. sarax si mooy maanaam vidde bëtri bëtri mooy maanaam mooy mooy mooy aspiré mbon googu ci doomu aadama yi est-ce que nga wax bi ndax am na ci benn borom xam-xam bu dëkk Égypte bu nettali nee na xas euh, as gor ci ab dëkk moom jaral na ko bañ a fanaan ca dëkk ba maanaam maanaam bu ñëwoon ci ab dëkk toog ñu sosal fa nit wala ñu fen fa walla ñu xas fas gor bu nga xamee dafa fanaan waaw ndax nee na moom leer na kon naññ ni doom juróom-ñaari fan te natt bi yàlla wàccul ci ñooñu boroom tuubul <laughs> dégg nga wax bi waaw comme sàmbaa ngi lay wax ci wàllu waxtu yi nañu tënk ñu jëm jamono ñu gën a àggale insha allahu doon na war xanaa fi ma koy jeexal rek euh, wax dëgg yàlla question bu mujj bi ndax mënul ñàkk dafa bokkoon ci ci ci vraiment bi waaye li nga li nga tontu léegi moom sañu bi man dafa dafa ma yóbbuwaat ci beneen dimension fi mu toll que waaw mooy question bi sax laaj bi wax ci moom naka su dul tuumaal ko dafa doy wax daal sëñ bi mais tey jii man bi ma bëggoon a jeexal rek mooy ñaan yàlla la bëggoon xam mooy lan ak kan mooy ñaan moom moo kan moo war a ñaan yàlla. waaw ñaan yàlla de baat bi moom daa wuyu boppam. ñaan gu ñuy ñaan yàlla nit nag waxuma yàlla de waaye nit koo xamante ni si nii bu la digalee doo def bu la teree doo bàyyi bu la neex nga wax ko soo ko ñaanee du la may desantuma laak naag yàlla yàlla ñi ko war a ñaan hmm. mooy ñey def lam digle bàyyi lam tere ragal ko doxali seen digganteeg ñeen di ñaanal xaqu yàlla ji tey daa benn moodu moodu bu ma woo ca bitim réew di wax ak man ci téléphone bi di jooy jooy yu metti ma déglu ko ba mu pare laaj ko lu ko tax a jooy man ma xolam dafa jeex ci ñaar maanaam moom daa bëgg ku ko ñaanal yàlla te amu ko benn lu mu am def ko ci di gisu résultat bi ci topp itam day liggéey di ko jox nit ñi ñu koy lekk te amu ci seen ngërëm mànde maanaam kenn gërëmu ko ci mu mel ni moom fam ne ab jaam la fa buy taxawaalam ñu mel noonu nag buñ dajee ku ragal yàlla toujours sànq gi muy sànq boppam di leen ciy boole sànkaal leen ma li tax ma leeral la ko mooy bëgg nit ñi gën a bàyyi xel bu baax ñaan yàlla nee naa la ki ko man mooy ki nga xam ni ak ragal yàlla dafa nekk ci moom waaye ab xam dafa nekk ci mm-hmm. ki ñaan moom na dem ca ñam am yaakaar ñaan ñaanloo leen ñaan nag kenn mënu ko fee jële saxla bata dafa nekkoon faqiir bu ñàkk lool ci jamono yonent bi ndax ñaan bañ koy def muy nangu booba yonent bi day dund mu ñëw ci yonent bi ñaanloo ko alal nga xam ne moom moom daa ñëw directement ni ko ñaanal ma ma am alal ni ko Abraara nettee nee ñëw na nettalee nee na ñëw na ñetti yoon ci yonent bi ñetteel ba la ko yonent bi door ñaanal riwaay yi wuute nañ ci nee ñii nee nañ da koo ñaanal ci biirub julli ñii nee nañ daal julli ba pare tàllal loxo yi ñaanal ko ko ñii nee nañ da koo ñaanal gannaaw bu mu jullee ba pare waaye lu ci maanaam daal yonent bee ko ñaanal ba ko yonent bi ñaanalee ñaan nga nangu mu am alal joo xam ni ak jur la alal ja mujjoon na ba sàmm yi mënatuñ ko sàmm ndax bari mënatuñ koo yeew ndax bari xëjatul bir màkk mu génn ak moom loolu ku yonent bi ñaanal alal mu am alal ba alal ja toll noonu ñoom ustaas ñi ñëpp ba ko jàng mi ci téere xissa yooyu kon ñaan mu nangu lu am la ñaan nag nee naa la ku xam ki ñuy ñaan muy suñ borom rek moo mën a ñaan li ngay dégg ci réew mi yépp dara du ci dëgg sungu gën a gaaw alxuraan nag fiti sa gën a gaaw alxuraan nag lu gën a gaaw yàlla amul te yàlla ci boppam moo yor melaw alxuraan bi yëpp saase na ci internet bi di ko di ko di ko di ko di ko di ko wedd ni julli woon takk takk waaw maanaam lépp loo xam ne daal boo ko takkee mu défendre la takk ko lu tax ñuy takk gilet balu fital yi nii bañ bal dal la wala loolu julli war koo takk. waaw déedéet dama lay laaj. ndax bañ da bal bi dal la wala da ngay défendre. bañ mu rey ma. bañ la. Ah. waaw xanaa xamuñu li yàlla mooy reye. ah, ah kay. ci boole gilet bi. <laughs> waaw kon tabaarakallah dégg loolu ak euh, sant Ibrahima Diaye tabaarakallah dëgg yàlla euh, leer na daal. <laughs> waaw kon ñu mel lu seen tur di leen toog ñuy wax ci lu mel noonu. daanaka ñoom bi dañ ko seetaan incha allah rabbi te yaakaar naa ne mu nekk lu leer nañ dañoo faral ci sonal nit ñi. naan mën nañ ñaan ñaan boo boo weesoo boo jullee pare def fatiha saa fatiha wala fatiha def fatiha daas rek doole sëg day bañ sax ba wax boo waxee ni boo waxee ni sëriñ sax ñu am luñ ci teg boobu te ñoom dañuy wax laa ilaaha illallaah nga wax laa ilaaha illallaah ñu bëgg a génne ci diine tey ñooñu tey tey tey sëriñ bi tey ñooñu tey eh, lan ngeen di dimbale ñi nga xam ne da leen di da leen di déglu ba pare te bu ñu yàggee mën nañoo këf. waaw diine daal baat yi ci dugal nit. jógewul ci nit ñi te inna diinu inda al islaam diine ji yàlla reconnaître l'islaam la tudd mu yónnee ko yonent bu ñuy wax sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam diine jooju nag doonab imaam taxul nga dugal ci nit baax taxul nga dugal ci nit gën ci nit ñi taxul nga dugal ci nit diine ji yàlla moo ciy dugal boppam nit ca la mu wax ni ca la ciy duggee moo ciy génneel boppam nit ca la mu wax ne ca la ciy génnee ku deful loo xam ne yàlla moo la génne ci ba ci diina ci boppam nit ñeeg seen pexe mënuñu laa génne ci diina ji oustaz. kon ñoo dégg noonu yi nga xam ne dañu dañu bokk wax laa ba loo def rek la génn ci diine ji. loolu ñu génn kon yéen a ko déggoo noonu ak suñu waaw kaddu oh, oh, yu mujj yi daal mooy jamono jii fi àdduna nekk nii na nit ñi yeewu ci lu bari te wàññi seenu ngëm ci li ñuy dégg ak li ñuy gis kaddu yu mujj mooy fii jamono toll na nit ñi yeewu ci lu bari te wàññi seenu ngëm ci li ñuy dégg ak li ñuy gis ku ne ci loolu rek doo sànku baay taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci waxtaan wu am solo bi waaye ci leeral gi ak faram-fàcce yi macha allah rabbi ñaanal la yàlla sama borom doole la taxaw dana guddal saw fan doole yore cër ba mi yéen yi nga xamante ne naalal nga ko askan bi tam sa borom defal la ci lu kawe sa waaye yaakaar gi askan wi tam di am ci yow tamit yàlla bu yàlla tas yaakaar bi waaye ñaanal tam bu baax baax suma suma oustaz sama xarit oustaz Ibrahima Diarra moom it wax dëgg yàlla euh, yi muy waaj yëpp yem moom itam yàlla na sa borom teg ko loxo tegal ko ci loxo jàppandal lépp ci dara yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaye sant tam bu baax baax bokk internet ne saa su ne ñu ngi ñu ngi topp jotaayu bi waaye soppe yi nga xamante ne ak am xamante ne ñu ngi taamu waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koy seq ak ki nga Alxuraan ñoom it kenn ku ci ne fa mu nekk lay bëggam ak yeneen ko mu bétam suñu borom mi dul jeexal dara wa salaam jox leen dig daje incha allahu rabbi taala ci beneen jotaay ak jotaayu xam-xam bi jërë ngeen jëf wasalaam ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismi ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismi ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw